Euh, déet en tant que njiitu réew moom en tant que njiitu gouvernement waaw en tant que njiitu gouvernement mais li ma la mën a wax ci loolu loolu li muy màndargal mooy Sénégal réewu droit réewu liberté la réewu liberté mooy nga mën a toog laaj ma ma tontu la mais aussi keneen mën a wax xalaatam wala mën a def xalaatam lépp ci jàmm ak salaam loolu déjà daf koy màndarga maintenant réew mu nekk aussi dafa am ci charte yi muy dox bu ñu nekkee ci dañoo nekk ci démocratie ak bu sunu réew bindoo dafa am ay pouvoir yoo xam ni ànd ñu dañoo am euh, lu ñu ñoo bokk réew mi mais ku nekk am lu la sant maintenant ci réew ku nekk da nga koy bàyyi mu def liggéeyam ñu ngi toll ci jamono joo xam ni justice moo aye di def liggéeyam nañu bàyyi justice def liggéeyam ba mu jeex ñoom ñooy apprécier situation yëpp ñoom ñooy xool situation bu bu nekk lañ ci war a def buñ ko defee rek incha allah ñun en tant que gouvernement sañuñu ko bañ mënuñu def lu dul nangu ko. kon euh, intellectuel yooyu ñu ngi leen di ñaan appel bi ñuy def d'abord ñu ñaan appel ñu def appel d'abord ñaan jàmm am ci réew mi ñu def appel ñaan képp koo xam ne da ngay woote violence wala loo xam ne day lor wala day yàq nga bàyyi ko ñu def appel aussi ñaan réew mi ci wàllu droit ku nekk def liggéeyam. ma leen di sant leen gërëm.